Maamu Maal bu bokk ci waa ñoo bañ man dalal naa fii ku mel ni Mourtala Seck ñoo euh, bu collectif ñoo lànk ku ne xam na ni euh, collectif yi am na taxawaay bu ma sëkk ñeel cherté dund gi la preuve keroog bi ñu amal concertation des prix ñoom ña nga fa teewal fa li nga xamante ni moo di askan bi euh, tey gis nañ seen présence porte nañ combat ba tey fi ñu taxawoon ñeel euh, njëg yi ñu wàññi ko ci ñun mu gën a gaawee askan bi mun a nekk si jàmm ak salaam donc boo nemee euh, tey seen manifestation du leneen lu dul benn avance ngir ñu anticiper sur la question Ousmane Sonko Adji Sarr. Abass Fall foofu la bokk ku li dem Mame Diarra Fam foofu la bokk. xëy na bokk nañ ci. Guy Marius Sagna foofu la am na nit ñu bëri ñu ngi bokk ci association ak ay kuréel. waaw dama lay expliquer dama lay wax xam ñëpp ñu si bokk. dama lay wax xam nga kuréel manifestation te yow li wax te la ñu yéene wax ko ñoom. def ko wax cest à ko ba. ba ñu waxee turu Sonko ay militant Sonko yi ñoo fa nekk. mais dama ni mun nañ ca bokk. ngi ñëw parce que saak nee la. maa ngi ñëw démembrement la bokk si waa Ñoo Lank. te ku ne xam na ne collectif Ñoo Lank bëri na ay politiciens ci la parce que dama wax ku nekk ak loo tal ñoo lànk yi ñëpp c'est des ay politiciens lañu déguisés nguuda boobu fu mu bokkoon. waaw fu mu bokkoon. ko fu mu bokkoon tale bu nekk dem na fa. actuellement luñ ko fal. chargé de la régulation xaw ma parti passif. loolu fan la am. yaa bi fekku bëri crédit. non dama lay wax man ngay waxal de. non dafa am crédit man lii ñu am na dugg ci man mu xool. bu duggee ci man dina yàkkamti ak codina siffle fin te du jeex man damay xeex. mais je veux dire par là. pourquoi li ma la bëgg wax mooy. à chaque fois xale bu nekkee di porter combat. dans ce pays dama lay wax ma la bëgg wax dans ce pays ngeen a pas de combat qui vaille. c'est parce que on a vu des syndicalistes yu fi toog di wax au nom du syndicalisme finalement dem ranger wu Pastef daa mbooj. Ngounda Mboub un soi-disant conscient il ne l'est pas. il ne l'est pas bu nekkee mu Wouda Mboup nee na constitutionnaliste la nañu génne firnde yi wane ne moom c'est un constitutionnaliste en tout cas tout ce qu'il a à dire ci constitution boobu ba léegi moom ah ay juug la rek c'est pas la vérité léegi Wouda Mboup moomu doon wax finalement Ousmane Sonko tànn ko def ko mu war a nekk ku réguler bii passe Pastef ñu ne non membre de Pastef maanaam bokkul parti Pastef mais moo war a réguler parti Pastef loolu mooy ban. waaw ah, mais du constitutionnaliste la. non maa ngi ñëw rek dama wax loo bokkul noo ko mën a réguler ci politique. maanaam bokkoo ci parti ñu ne la yow yaa war a réguler parti bi ah, waaw mais bu soxla impes ñaar ñaar maa ngi neutre nag ñaar ah bu fekkee da nga soxla neutre nag am nañ ñetteel bi Guy Marius Sagna France frappe France frappe France dégage dafa wootee 2017 ne day layal askan bi moo ko tax a jóg. te loolu la nekk ba tey nekku ci. ndax gis nañ ko même bañ ko joxe dotation même ko joxe ay dotation en carburant mu gis ko ni les entreprises françaises da ko bañ. waaw maa ngi ñëw kon ba tey mën nañ jàpp ne mu ngi ci xeex boobu. 148 personnes la kilifaam moom dàq. yeeyu ci yàbbiwu ci. pourquoi nga tuddee ko kilifaam ay kilifaam. mu nekk kilifa. mais kan moo ko investir fële Ousmane Sonko ba mu ko xamee ne mënu mënu du nekk. non mais xaaral dama lay expliquer dafa bokk ci yeewu askan bi yeewu askan bi ñoom ñoo ko investir. du Pastef non dama lay wax non Pastef a ko investir. xam nga yéen bu bu bu buñ leen orienté foofu c'est-à-dire que Guy Marius Sagna. non ñun luñ gis lañ mën a wax Pastef la bokk. ñun ñun ñun dégg nañ comme ñu ne waa Pastef ñoo ko investir. non Guy Marius Sagna waaw yeewu askan bi ñoom ñoo ko investir. Guy Marius Sagna mi ngi ci réunion Pastef yëpp Guy Marius Sagna mi ngi daje Pastef yëpp Pastef la bokk. mais dégguñ ko moo ko maintenant léegi waaw ah, dama lay wax dama lay expliquer. te ku ne xam na ni franc parler bu ca bokkul dina ko affirmé non amul franc parler xam nga amul franc parler. 148 personnes la ñu dàq mu dem fa déglu leen au moins le maire de Golf Khadija Mayakor dàq ay nit foofu déggoo mu wax ci. Barthélemy Diaz frappe France dégage gerte bu ñu jël total Barthélemy ay boowu Auchan la distribué déggoo mu wax ci Ousmane ko boo demee maire bu Ziguinchor wax naa la ko fii. total ay boobu total lañu yor déggoo mu wax ci mais bu dee nguur gi la mu ubbi làmmiñam di wax moom France France dégage donc c'est des gens yoo xam ni c'est-à-dire ni ay mirage la ñuy créé sax dañuy wax dañu ñëw taxaw def lii fekk na ña ngi ca leneen manifestation bii nguur gi nag moom xam naa ne moom ña war a xam xam nañu dañu war a doxal dañ ko doxal mais Abass Fall communication man je l'ai bien écouté ils ont ils sont en train de préparer la jeuness kii Ousmane Sonko audition bi mu war a dem. pour leeral pour non. loolu la eh, non dama bëgg nga déglu. non ci yow sa gis-gis Abass Fall baax dama expliqué dama bëgg baax li mu wax saa Abass dafa wax ni Sonko moo ko woo yóbbante donc moom Sonko ko moom waxul donc Sonkoy wax. loolu la wax parce que Sonko mënu ca teew. ma nga ca nemmeeku tur ba mu daal délégué kenn pour ko ci manifestation non xam nga boo nee Sonko ma yónni donc wax yow nekkatul yaa ko wax yónni ba mu ne yàllaa ko yónni ñu gëm ne yàllaa ko yónni moom waxatul yàlla mooy wax donc Ousmane Sonko moom mooy wax Abass Fall waxul Abass moo ne jaratul ñuy déposer autorisation dañuy marche par force cent autorisation nee na constitution moo leen may ban constitution réew mi réew mi fan nga gisee fan fan nga gisee rek nit ku jóg rek dajaloo dem taxaw si dem taxaw si. non loolu moo amul fenn. loolu la wax nag manifestation. non loolu la wax da ngay déposer li nga xam mooy sa demande. si nee na moom nee na moom. booy sonko yi lay waxal ña ngay sonko sonko sonko mooy dof rek sonko sonko sonko sonko mooy leen sonko nee na. jaratul ñuy déposer autorisation dañuy marche directement donc loolu laa ma ne la c'est-à-dire que bi ay taxawaarukat lañ rek c'est-à-dire que ni bon maintenant mën nañ jàpp lu leen neex wax lu leen neex mais mais nag mais xam nga kan yor décision finale le de manifester quand tamit loolu. loolu loolu loolu quand même. loolu c'est reconnu par la cette manifestation elle est autorisée ñoom tant que ngi taxaw fi ñu taxaw. xëy na foofu lay waxee. tant que ñu ngi taxaw fi ñu taxaw mottali ko am nañ droit manifester en tant que sénégalais. tant moo tax mu ne léegi bu ñuy manifester te dootuñu. tant que tant que ñu ngi taxaw fi ñu taxaw. tant ñi ngi taxaw fi ñu taxaw di mottali ko bu bougé la parce que bariwul non bari nañ nag gis nga nag xoolal kaay nag gis nga bu saboté nga yaakaar ne fii tey ku ne yor nga sa bopp manifestation gi tey bari na bii